jaar-jaaru Cheikh Niass mi faatu ci prison Cap Manuel ab mbir bu doy bu ñu sukkandekoo ci yéene groupe Futur Média bi histoire Cheikh Niass ci boppam ba mu juddoo ba keroog ba mu ñàkkee bakkanam ca prison jaar-jaar bu doy waar la rawatina ci anam yi nga xamante ne ci la ko yëfi dabee ci ab contrôle de police rek la mujj amee jafe-jafe ñu yóbbu ko prison ba mu ñàkk ca bakkanam te li ko indiwoon ci Sénégal moom moodu moodu bi mooy teewee màggalub Tuuba bu bu jigéen bi di Aram Thiam muy xamle ci yéene kay bi ni benn yoon moom Cheikh nas mi juddoo ca Gàmbi daanaka histoire am laale na tamit ak coowal ku koy Samba Sagna ndax ci jamonoy coup d'état boobee ñu waroon amal ca Gàmbi ci la dawee ak ay waajuram daa di génn réew moomee histoire am laale na tamit ak mbirum bateau le Joola mu nekk lu doy waar leneen li doy waar Libération moo ko xëy fësal tey ci xëtam bu njëkk muy lu jëm ci fay ay ndàmpaay yi nga xamante ne moom la agence de construction des bâtiments et des édifices publics doon defal te nga xamante ne dafa jàpp ni bambu dëgg moo ci am ñu ngi doon joxe koppar gi te amul organisation bu conseil de surveillance ci di directeur général ba di Amady Dieng moo doon may kon ay ndàmpaay yi nga xamante ne weer wu yàlla sàkk daanaka benn nit képp mën na am ci lu toll ci huit cent mille loolu yëpp kon bu ñu sukkandekoo ci libération bokk ci bambula bi xew ci agence ba keneen kuy def bambula mooy Dame Diop jëruñ ji ñu dénk wala formation professionnelle lu témoin yéene kay tey di ñu xam le ni ministère bi ñu ko dénk daf ko daal di baoliser maanaam boo fa duggee e bawol bawol képp nga fay fekk daanaka ñoom ñoo nekk ci direction yi moo bootu ci ministère am te ku ci nekk ci ñoom mu am ay xeetu baax-baax yu mu lay jagleel Walf Quotidien xëy tey ci ndaamal Kajoor yéenekaay bi di wax ci ñàkk transparence bi nga xamante ne kii di njiital parti réew mi nga xamante ne léegi dafa fekki mburu ak soow daf koy def ni ab taxawaay muy absence am ci ab tawat bi nga xamante ne moo ko waral te moom Idrissa Seck addu ci maanaam indiw ci benn lerange ay lerange la ñu jàpp ni amul ci liste électorale yi nga xamante ne moom la ñu fësal ni ki démb mu aju ci élection locale yi ñu dëgmal Sud Quotidien wax contestation fast track bi di door contestation kay Bamba Fall moo koy dund dëgg ci lu jëm ci local yooyu nga xamante ne ñu ngi koy waajal ca diwaanub Médina moom maire ba ci boppam dafa mel ni ay militantam wala sax askan wi foofee ca Médina àndatuñu benn yoon ak moom ñi ànd ci seen biir bootu ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaye juboo amagul benn yoon seen diggante rawatina ci lu jëm ci élection locale yi ñu dëgmal le quotidien yéene kay di wax ci xëccoo bi nga xamante ne moo war a dox seeni diggante ngir jiite yenn ci gox goxaan bokk na ci ndawal Madiambal Diagne daal di fësal ci ay gox ville bu ndakaaru Thiès Fatick Saint-Louis Ziguinchor ba ca sax diwaanu Kaffrine moo tax le quotidien di xam ne ni kon taxawaayu Benno jamono ji dalul xel benn yoon ndaxam Sénégal mën naa dalal xelam ci tolluwaayu koom-koomam ci jamonoy mbas mi ñu toll ab jàngat bi nga xamante ne cabinet Blomfield Investissement moo ko daal di def L'As quotidien di ñu ciy xam le ni koom-koomu réew Sénégal moom jamono ji mën nañoo jàpp ne am na ci taxawaay bi nga xamante ne lu bëri ci li Sénégal daf koy jaarale ci PSE moo tax Dakar Times xëy tey ji wax ci Sénégal horizon 2025 ak plan Sénégal émergent bi nga xamante ne ñii di waa OCDE dañoo xëy daal di koy càmbar ñu gis ni dëgg la am na ay jafe-jafe waaye politique boobee nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall moo ko fi samp li ko tax a jóg mooy teggi gàllankoor yi nga xamante ne réew mi daf koy jànkonteel waaye tamit gën a taxaw askanam ci wàllub koom moom critique yéene kay am na beneen jàngat bi mu def mu sukkandikoo ko nag ci li nga xamante ne moo jëm ci bor bi Sénégal yore yenn bi critique di xam ne ni kon Sénégal jamono ji dafa nekk ci suufu sëyub bi nga xamante ne kii di UEMOA ci boppam moo ko imposé Sadio Mané di imposé boppam ca tugal Stade Quotidien xëy tey di wax ci jaloore yi nga xamante ne doomu Bambali bi mu ngi koy def te kenn mënu ko méngale benn yoon ak yeneen suur sénégalais yi ci wàllu Ligue des champions képp yéenekaay bi di xam ne ni moom suuru Liverpool bi dugal na lu tollu ci ñaar fukki but raw bu baax a baax yeneen footballeur ci mel ni Mbaye Niang ak la dugal ci compétition boobu stade quotidien di dikkat ak lu ñuy xaar tey mooy listu Aliou Cissé jëm ci jongante Sénégal ak Namibie muy xamle ni kon Bamba Dieng ak Bouna Sarr